waaw pour pour le moment mën nañu wax ne que euh, opposition bi c'est normal ah parti bu nekk wala coalition bu bu nekk am candidat euh, jàkkaarloo ak sénégalais bëgg nguur loolu c'est des ambitions personnelles normales légitimes. Mmh. bon maintenant est-ce que am nañu espoir gagné. Euh, bon schématiquement en tout cas bu ñuy xoolee nu. 21 candidats les 20 contre 1 suñu jëlee paramètre boobu les 20 se réclament tous de de l'opposition contre un seul qui incarne le pouvoir mmh. bah il y a pas photo normalement les 20 ils ont une chance de gagner mais euh, fu ñu amee chance peut-être dafa laaj euh, quand des conditions pour que opposition mën a gagner cest à est-ce que parmi les vingt am na ki nga xam ne euh, mën na daanal mbër euh, majorité bi au premier tour ou au deuxième tour donc c'est un problème de de rapport de force que suñu amoon daal mbër bi nga xam ne mën na génn parmi les vingt mën a daanal euh, le le mbër majorité présidentielle opposition bi am na am na chance foofu. c'est ça nee nga nee nga vingt wala vingt et un contre. ñoom ñëpp ils se réclament de l'opposition tous parce que Aliou Ngouille Ndiaye il peut se réclamer de l'opposition mais bien sûr Aliou Ngouille Ndiaye ñoom ñëpp Mame Boye Diao il peut se réclamer de l'opposition politiquement il faut pas que ñu ñu ñu ñu ñu à partir du moment où Amadou Ba c'est le candidat de la majorité il y a pas deux ou trois candidats de la majorité ñoom ñëpp Amadou Ba la ñu nar a voter ñu nar a vootal ñi nga lim Aly Ngouille Ndiaye mais ñi nga xam ne opposition la ñuy vootal mais ñoom Aly Ngouille Ndiaye moo leen doy parce que Aly Ngouille Ndiaye du defendre programme am a du baax soutenir du baax donc quelles que soient les raisons même ku tàggoo ak Macky Sall démb su dee samp na ndëndam di wuti il est adversaire du candidat de Macky mais naa nag politique dafa am nuance y a des nuances c'est-à-dire que les vingt là dafa am ben une opposition bi nga xam ne elle est radicale peut-être trois lañu wala cinq lañu c'est des radicaux c'est-à-dire que ñoom pour ñoom il faut que le gouvernement dégage duñ ko euh, fas yéene même bu amee deuxième tour du ñu votal candidat majorité président c'est ça l'opposition radicale mais entre le candidat la majorité ak l'opposition radicale mais il y a plusieurs façons de s'opposer la deuxième catégorie boobu loolu mooy difficulté ci politique deuxième catégorie bi su amoon deuxième tour mu am par exemple candidat de la majorité ak un candidat de l' mais am na ñi nga xam ne candidat opposition bi la ñuy la la nar a am na ñi nga xam ne ñu ngi ci opposition bi candidat majorité bi la ñuy voté donc Aly Ngouille Ndiaye su amoon deuxième tour ou bien Boun Abdallah ba ñoom il sont plus proches de Amadou Ba su fekkee Amadou Ba moo ou l'inverse su de Boun Abdallah moo jàll à la place de Amadou Ba Amadou Ba est plus proche de Boun Abdallah c'est là le négociations su amee un un deuxième tour mais pour te dire daal que au moment où nous parlons Amadou Ba contre tous. d'accord parce que li nga wax aussi maa ngi koy analyser waat que ni euh, boo nekkul ak le le candidat du pouvoir tu es de l'opposition bon loolu aussi comme li nga wax dafa am nuance. dafa am nuance parce que parce que nekkoo àndoo ci choix bi yi jël rek que tu es totalement contre parce que bala ñoo xam ni te pas de l'opposition bu ñu demoon tey deuxième tour ngay gis blog yi di formé wu ñi mën a ànd ñi ngay gis ni dañuy ànd donc ñenn ñi ñu ngi doon réclamé wu de l'opposition di lu réclamé wu ay opposan mais au finish di nga xam ne ndekete ils étaient pas des opposants peut-être ils étaient des rebelles parce que ànduñu ci choix bi mais pas des opposants donc. Euh... non disons que opposition ça c'est c'est peut-être du niveau terminologie bi ah. ça il y a pouvoir et opposition c'est les deux pôles Amadou Ba il est le pouvoir. même ñi réclame troisième voie ñoom ils sont. Bah, ils sont dans l'opposition <laughs> ça c'est ça le le le jeu ah. ça a tu as un pouvoir tu as une opposition. soit tu es blanc. mais mënoo nekk ci diggante bi. non non non c'est-à-dire que y a pas de radicaux en politique c'est ça la vérité. y a pas de si tu as un cas de figure chacun va se positionner en fonction lu mu li mu yëg. man loolu nag ci fii ci conscience su population bi laa ko gën a sentir pour man conscience population bi mooy soit tu es noir soit tu es blanc tu peux pas être entre le clair boobu population bi ñoom lu ñu mën a gis mooy noir wala blanc soit tu es avec Macky soit tu es contre Macky mais ci ñoom politiciens yi seen conscience. analyse boobu demewul noonu euh, peut-être Alioune Ndiaye yow nga nga nga wax ñu yéen politique eh, ban euh, ban ban gis-gis ngeen am parce que population bi moom boo leen di déglu li ñu xam mooy soit da nga ànd ak Macky soit da nga contre Macky